di ko teewee yàlla na ko teewee na gën si déwén ku demul màkk itam yàlla na la yóbbu ma sama xol dem na màkk dama tëdd ba guddi sama xol bépp dem màkk yàlla na yàlla def nii ajaaj di demee jóge ci meewaan dem meewaan dem màkka yàlla naa ne demee màkka ci barke birante bi sallallahu taala alayhi wa sallam maa ngi koy ñaan ci bi yàlla bëgg sama xol de yàlla na ko suñu borom yàlla def man nag maa ngi ñaanal ñëpp ku mbalam ko teew ku teewul ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm defal ko bépp jullit maa ngi koy ñaanal ñëpp kattanu yàlla ak jëmmam ak di di ñaanal sama sëriñ ba nga xam ne moo dem sëñ Adama Wade maa ngi koy ñaanal yàlla na yàlla woy fa suuf ci kawam ak ak ak ña ko fekk fi ak ña ko fekki ak ñam fa fekk ci barke bi yonent bi sallallahu taala wa maa ngi ñaanal ñëpp yàlla na ko teewee na gën si déwén daal barke bi yonent bi yow laa ci bëgg a def ñaari kàddu yow noo tudd Ibra Ibra Ibra ah li may wax nii sama xol sama xol laa ko a ak ma taxaw nii ndax ku nekk xam na ne ah bisub tey lépp lu ci waay ñaan sa xol ci sa xol bii nga setal ko laabal ko nga jullit ji ba ñëw lépp lu ñaar job jullit loola ñaan nga sunu borom mën na ko nangu ci fépp ak ci lépp lii nga yëngu nii yal na ci yàlla may ndam sutural la ci ba nga dem ci gis sa bopp ba nga dem ci ba teranga bëgg defal sa yaay jiyee nga defal ko ci teranga bëgg defal say say say magi ca kër ga nga defal leen ko ci yàlla na yàlla aar man ajaa ndey maa ngi la ko ñaanal ndax li ma ñaanal sama njaboot rek loolu laa leen na ndax njaboot gépp benn lañu njaboot yëpp dafa ko am jàmm rek ñëpp am jàmm yàlla yàlla boole jàmm ji dama ñu sutura si di barke yonent bi sallallahu